nous sommes d'accord. En conséquence, toute personne visée à l'alinéa précédent élue à l'Assemblée nationale est, remplacée dans ses fonctions et placée dans la position prévue à cet effet par le la régissant dans les jours qui suivent son entrée en fonction. C'est aujourd'hui que vous entrez en fonction. Donc, c'est l'installation, c'est le jour de l'installation qui en fonction. الأنفال جيمي ديتا جيمي ديتا يلعب دون اون كونتينيو Thank you. Mbacke Cheikh Mbacke tey jii may wax ak yow da boo xam ni journée la adduna bi yëpp dañuy seetaan adduna bi yëpp dañuy xool adduna bi yëpp dañuy déglu man jàpp naa ni madame la présidente yow wur la ñëw de violer li nga xamante ni mooy constitution bi ak règlement intérieur assemblée nationale madame la présidente le règlement intérieur assemblée nationale article cinquante et un mooy wax ni heure bi nga xamante ni conseil constitutionnel joxe na résultat définitif tey tàmbali loolu mooy yoon madame la présidente boo jëlee tey jii article bi daf la ko yóbbu si article soixante bi parce que mooy li nga xam ni amuloo sañ-sañu topp député wala nga jàpp ko wala nga tëj ko wala nga siise ko comme ni ma defoon violé wala li nga xam mooy réglementé ak constitution bi loolu amul madame la présidente boo jëlee li nga xamante ni moo jëm ci ministre yi fi nekk madame la président ministre yii waruñoo toog fii dañoo war a démissionner ñu remplacer leen wala ñu tas gouvernement bi ndax loolu la yoon santaane ndax xëy na ñu nekk seen suppléant wóolu wuñ leen pour que ñoom ñu ma leen remplacer ngir ñu bañ a wat leen dëgg waaye madame la président dama bëgg lu ñuy def ñu sukkandiku ci ay loi ak ay règlement man yàgg naa fi nekkoon naa fi élection yi passé 2017 la ñu faloon ma nekk député yéen am na ñu fi nekk nga woon sama collègue député yi ñii ay bojo bojo leen kenn du leen tontu parce que suñ bëgg a nekk yéen du leen fa nekk parce que yéen ñu baax ñe da leen fee yabal madame la présidente boo jëlee article 86 ci li nga xamante ne mooy règlement intérieur assemblée nationale yaa ngi nii maa ngi nii élection yi passé ay bulletin la ñu defoon bulletin son bleu ak beneen loolu lañ defoon loolu mooy laal blanc bulletin blanc lañ defoon ak bleu élection yi passé kon jàpp naa ni tey article 86 boobu noonu dañ ko war a appliquer pas ñu bind ay tur yow mais madame la présidente yow fi nga nekk nii may wax ak yow ki nga xam ne moo faroon na nekk da ngeen koo fexe ba wutal ko certificat médical de feebar parce que kooku moo faroon nekk mais kooku daf dellu ko parce que mënut a bind mënut a lire ñu jàpp ne yow man nga ñëw pour que maanaam nga sal sale suñu mais loolu du am madame la présidente bu fekkente ne day sukkandiku nga si constat bi article cinquante quatre alinéa deux article cinquante quatre alinéa deux moom moo wax ni Abdoulaye Daouda Diallo mais toog Mariama Sarr ñuy toog ak kanaat ñoom ñii dañoo war a génn yow mii Abdoulaye Daouda Diallo da ngaa war a génn. Mariama Sarr da ngaa war a génn bu ngeen génn débat du fi amee wat du fi ame man maa leen ko wax parce que loolu ngeen wax Cheikh Aliou Bey Gracias. salaamaaleykum euh, madame la président euh, salaamaaleykum les représentants du gouvernement aleykum suñu bokk député yi man li may wax mooy sénégalais yi seetaan man waxuma ak assemblée bi sénégalais yi lay waxal sénégalais yi xam ne dañuy décidé woon ñoom ñooy décidé dama bëgg nit je parle aux sénégalais waxuma ak à quelle li ma ci bëgg a wax li ma ci bëgg a wax di ngeen déglu de di ngeen déglu dama bëgg wax ni sénégalais yi sénégalais yi laay waxal sénégalais yi ñi ngeen teg fii dañoo ñëw pour wax ak yéen wax boo xam ne dañoo war a dégloonte parce que assemblée boo xamee ne bi nii ñun ñu juddoo Sénégal yaroo fi màggee fi amuñu dara dul Sénégal institution bi gën a mag ñu toog bu ñu ko jox cër loolu problème la franchement c'est c'est c'est problématique te jàpp naa ni te jàpp naa ni bu fekkee ñun ñu nekk ci assemblée bu ñu wax mënu ñu wax ba déggoonte mënu ñoo dégloonte gëm naa ni du wax benn instant naa ko vérifier am na ñoo xam ne parce que parce que parce que bu dee li nga xam ne moo ñu boole muy procédure yi muy élection ñun tolluwuñu lu dul ci téeméer ak juróom-benn fukk ak ñeent am na groupement de femmes yu ñu ëpp ay mbooloo dañuy daje sax ngoon di natt di élection di fal ay nit te kenn du yëngu ay magum jëm toog. mënuñoo sax gën mënuñu ñu def sax mënuñu maa sax may lépp dama eggale li ma bëgg a wax parce que loolu lu mooy madame madame la président procédure bi dañ ko procédure dañ ko bëgg a jaxase fi ñu toog nii fi ñu toog nii da nga bëgg def élection madame la présidente yan député ñoo fi nekk yoo xam ne yoruñu bulletin dañu yëkk seen loxo bulletin yi ñu yoru bulletin dañu yëkk seen loxo ñu yoru bulletin ñu ngi nii yoruñu bulletin ñoo leen da ngeen élection benn yoruñu ay bulletin dem leen jox leen ay bulletin loolu dina ci baax parce que pour ñu élection il faut ñu ko am bulletin ñaareelu point bi mooy fii ñu toog nii am na fi ñoo xam ne benn enveloppe bu weex lañ yor def ci bulletin toog te commencé guñ donc pour man opacité foofu la commencé ñaareel ba su fekkee daa am ñoo xam dañoo bëgg a dem élection xanaa candidat yi bëgg a dem élection bu ñu waree tànn nit ñuy doxalee nañ leen woo ñu taxaw su ñu waree jël ay enveloppe di dugal ay bulletin ci biir xanaa candidat yi dinañ taxaw ba loolu wees loolu laa bëggoon wax ni war nañ ko leeral benn bi nag dafa am loo xamee ne bi nii euh, dafa am loo xamee ne bi nii non damay wax benn rek damay wax daa am lu madame la présidente wax dafa am lu madame la présidente wax non jox ma woon temps de parole j'avais pas le temps de parole j'avais pas le temps de parole j'avais pas le temps de parole j'avais pas le temps de parole non j'avais pas le temps de parole fallait me signifier le temps de parole s'il y a un enregistrement qui dit le temps de parole sortez-le et j'arrête s'il n'y a pas de temps de parole je resterai là non je ne veux pas ta mais il fallait me dire ça si c'est signifié si vous voulez cinq minutes vous le décomptez à partir de maintenant et ce sera valable pour tout le monde li may wax nag dama ni dama ni ma dul waxaat kon kon kon asa kon jeex na